ci demi-finale bi dox ci diggante Ada Boy Bawol ak Goro Sock jàkkaar lool Goro Sock ginnaaw Goro Sock daw na jël Ada jàpp na ci ngemb la mu nar Goro Sock Ada Boy Bawol Goro dugal na Goro Sock Ada Boy Bawol Goro Sock koy forcer mu puus Ada du ko zongale Ada Boy Baol Gora Sock Gora jàpp na ko mu bañ Ada Boy Baol Gora Sock Ada Boy Baol Gora Sock Ada Boy Baol Gora Sock wàllu bee yéen Ada Boy ak Gora Sock moom ngeen jàkkaar lool mbokk ñu ngi fii ci demi sum production moo woo ci terrain gaal gi dox ci diggante Gora ak Ada Boy cey lamb tey la dimanche 19 janvier 2020 Ada Boy Baol Gora Sock wàllu wee fa am assurance bu mbuur Gora Ada Boy Baol ña nga jàppante ba tey Ada Boy Baol Gora Sock demi-finale la mënut yomb Ada Boy Baol Gora góoro lu mu nar wala aada lu mu nar aada lu mu nar aada forcé na góora góora bañ aada forcé na góora mu bañ aada góora sok Ada Gora Sock Ada Boy Baol Gora Sock Ada Gora Sock Gora jël na ko arbitre bi wàllu wee yéen fa am pakala wala assurance bu mbuur ngeen baal ma mbokk ne ci combat bi rek cey lamb mbokk yi assurance bu mbuur moo leen ma ngay leewaatoo wala jàppante moom assurance bu mbuur ndaysaan wàll wee dox ci diggante aada booy bawal ak góor a sok cey làmb xale yi ñu ngi ci demi-finale yi nga ca demi-finale yi aada booy jël na tànk ba sukk moom sukk góor a sok lu mu nar Ada Boy Baol ak Gora Ada Boy Baol ak Gora ko Gora njëtt ko Gora njëtt ko Gora njëtt na ko mu nar Gora ko Gora njëtt na Ada Boy Ada Boy Baol def na quatre appuis Gora Sock éliminé na Ada Boy Baol mbokk yi ci assurance bu assurance moo leen won ginnaaw cey lamb ay lamb Gora Sock na final mbokk yi Gora daa dugal recours recours bi mu dugal moo génn arbitre yi jox kii di Gora ndam li mu am Ada Boy Baol demi final daan ko Ada Boy Baol yaa éliminé démb Goro ci journée Yaxya Diop Yékini bi tey Goro Sock moo la éliminé avertissement ñoom ñaari mbër ku ne am na avertissement cey lamb ndeysaan arbitre bi sifflé waat na bu leen jaawale assurance moo leen ginnaaw cey lamb assurance moo leen woon ginnaaw assurance moo leen woon ginnaaw assurance ma nga ba tey ñu ngi fii ci terrain gaal gi sum production moo ñu fi woo teg 2 millions 500 arbitre baa ngay atte noonu ci demi-finale bi dox ci diggante assurance ak joom ndaysaan assurance moo leen woon ginnaaw waaye joom ngeen di lool tey yàlla noonu ña nga ca ñoom ñaar assurance jël na tànk ba jël na tànk ba daan na ko assurance na final assurance qualifié na final assurance qualifié na final gaay yi noonu la demee waaw. jaajëf jaajëf. góor démb. Ada Boy Baol da laa éliminé. nga éliminé ko. dem final am assurance bu mbuur loo yëg. waaw la. dem ponkal ñu ñuy fay ponkal yëpp Ada moo daan. moom daan daan pagala daan assurance daan sele ñu ñëpp moo daan yoon ba moo ko daan kon war daan mi bu ko daan day nangu xaay la bu ko nit daan day nangu man mën mbër bu may mayanteel guruñ toll. li may def mooy damay bëri liggéey yóbbu suñu kër gëj naa ci ñaaraat mais maa ngi wane sama bopp ñëpp a ngi may gis mais toog naa ñaaraat bëri mu bëri simple waaw nga am assurance bu mbuur loo yëg waaw di ñaan may ma ndam la xam nga moom suñu grand la suñu grand la quoi yàgg na ci di ñaan yàlla may ñu ndam rek waaw nga nga bëre final bi nga bëre demi final am lu ah, nga bëre quart final am lu xew nga def recours mën nga maa expliquer lan moo xew di ko yëkkati ñu ànd mais vraiment dal ci kaw mu daan après mu ma mais xam nga lamb noonu lamb recours ñoo ànd defet moom mu jam isaat dañ ñu recours la waaw defet lamb recours ñoo ànd waaw waaw léegi bi nga bi mu tegee moom bi mu bi mu lay pivoté ci wër ndomba bi lu toog ñëw compétition bi sa dëkk ñàkk ko tey nga final loo yëg waaw wane àdduna ut ak ñàkk ñoo yem rek boo ñàkkee tey xëy suba ñëwaat dabu si ko yàlla suturaal la nga final may ñaan yàlla jël ko du dara làmb la rek boo daanoo fee da ngay xëy làmbi waat rek amul benn problème. nga bi nga ñàkkee nga découragé waaye teewul diggante Mbour ak Dakar bi mu am nga takkaat ak ngemb ñëw fii kon am na loo gëm. waaw man maa mën a bëre moo tax. am naa gëm-gëmu damay liggéey rek. dama cee toll dama koy def su ma ko paasee dama koy bàyyi aw ma jafe-jafe ay daanu nag ay daanu mag yi su ma daanoo damay uddi leneen su ma daanee damay uddi leneen làmb la rek làmb gëm-gëm la yaa ngi nii jóge Dakar ñëw Mbour xëyaat ñëwaat Dakar wasaare rek affaire bi moom la. góor a nga am final. waaw góor bi sifflé na. présentation Tony Junior la moom la mbokk yi ñu ngi noonu ci final bi finalu lese bi fii ci Soum Production moo ñu woo terrain gaal gi dimanche 19 janvier 2020 mu dox ci diggante Saara ak Tony Junior mbokk Saara moo leen joor Tony Junior moo leen wan càmmoñ arbitre bi sifflé na ña ngay leewaatoo ña ngay xoolante ci bët jaaraama wa Saare Lamb Tony daw na Saare jël na ko waaye Tony da koo gis Tony da koo gis Tony da koy mbot Tony da koy mbot caxabal na ko Saare bañ na ndeysaan Saare bañ na Saare bañ na Saare ñàkk na daan na Saara Tony daan na Saara Tony daan na Saara arbitre bi sifflé Ndaysaan Goro Sock ak assurance ñoo finalu mbokk yi dimanche 19 janvier sum production moo ñu woo fii ci terrain gaal gi Goro Sock daw na jël ko Sarr lool noonu moo jóge Mbour ñoom ñaar démb ku ne ñëw na ci compétition bi waaye ñoom ñaar ñëpp Ada Boy Baol moo leen éliminé Ada Boy Baol moomu tey Gora moo ko éliminé lamba ngi noonu ña noonu sëñ Bas lamba garaaw démb Gora daa ñëw ci compétition bi ñàkk assurance ñëw ñàkk ñu jóge waat Mbour ne nañ leen ko dàq Dakar ñoom ñaar ñoo finalu lan nga may wax ci loolu. waaw loolu mooy làmb xam nga làmb moom wuyu na turam da làmb mën ngaa daj mën ngaa ñàkk a daj amul kenn koo xam ne nii yaa ngi takk ngéem mu wóor la ne boo demee di nga am dara da rafet njort rek dunda yaakaar def li nga war a def loolu moo tax saa yu ñàkkee dañuy xam ne làmb la ëllëg mën nañ sëñ Bass wax mbër yëpp war nañ cee jël la soo arbitre bi sifflé waat na assurance Gora Sock sele eh, sele tey la muy daanu bari na lan la lan mooy problème am waaw dafa dafa jëlagul dafa jëlagul ay repère am parce aussi ay repères la rek gis nga mbër mi mën na commencer saison bi rek nekk ci ay repères am parce que final wala drapeau day tax mbër am jom. assurance war na ndomba góor a daan na ko wala assurance war na ndomba góor a daan na assurance daan na góor a assurance daan na góor a assurance daan na ko.